Sénégal bëri na lool ay nit yu ñu fi ràññee ay nit yu ñu fi naw lool ndax lu ñu liggéey ci suñu réew donte sax su fekkee ñu ci bari génn nañu àdduna mel na ni ñooñu le bàyyi nañu fii loo xam ni mu ngi continuer di law mu am nag ci ñoom ñenn ñoo xam ni sargal nañ leen bu baax ñii ñu tuddee leen ay monument ñenn ñi ay musée ñu dem sax ba am ñoo xam ni ñu ngi jël seen tur di ko jox ay gox. bokk na si tali jàll bii ñu nekk tey jii nga xam ni jàll picc lañ ko tuddee ndax gis nga mbedd mi tali bii ngay gis jàll picc lañ ko tuddee tali bi tali la woon kii la woon rang-rang la woon jàll picc tax ñu def ko tali dafa di koo xam ne dafa contribuer ci Sénégal tali bi nag moo xaajale caaroy gaar ak caaroy kaw dara sabab lu ko Dudul relation yu amoon diggante bi ci ak Senghor ndax ay tànkam bëri woon nañ ci kër gi lool. Senghor xaritam la woon daf fi daan ñëw très souvent su amaan gan daf ko daan andi fii. bu daan dem euh, ngeen fii la daan jaar par dimanche dégg nga baax li par dimanche soit mu yendu fi soit mu jaar. saafonteeg góor gi pabi bi recevoir ko ci booba jamono mu doog a continuer dem Popenguine des fois fi lay yenn am na benn bi sax mu ànd ak doomam Philippe Demba Diallo mbéj ko <laughs> bàyyi góor gi dàq Demba Diallo fii doomu ja doomu bi Demba Diallo mbéj ko gaa yi na ko ni yow ñu woo kii doom président ñu woo ko <laughs> Demba Diallo mbéj ko <laughs> ngir yóbbal yoonam ci kër xaritam ji Senghor daal di joxe ndigal ñu def ko ab tali ji nga tëli jàll picc bi dafa am Senghor ma sa ñëw ngiroo xaw ma ndawet la woon xaw ma mu am problème ñëwul mu joxe décision pour nu fi télé télé bi ci kër gi la yemoon jàll picc mo ni Senghor bu ma andi bu ma andi wax fi télé bi su mënta kon ne nan ko nan ko teggee su mënta kon né bu bu yam su bu ñu ko fi teg lool mo tax télé bi kon né nit jumun na ban ko jumunu wayé ana kan mooy Diallo Picc té ñu gën ko xam ci turu Baba Diallo ana ban taxaway la amoon ci suñu réew bo waral njiitu réew mi ñëw di ko seet si loolu di ay laaj yoo xam ni danañ ci gëstu tey jii bu baax ñu dugg nag ci biir caaro yi saafonte ak ñi nga xamante ni dund nañu ak moom tey xam lu bari ci moom. histoire Diallo Péthie dafa gudd tàmbaliwul si picc yi de dafa gudd gudd góor yàlla dëgg la <laughs> góor yàlla dëgg la waaw picc yi moom dafa gudd waaw dëgg tàmbale na doon na ko jaay si port ba xam nga jamono yooyu ñoom ñoom ay français lañu. dañu commencé jaay si port ba ay picc nii tubaab yi ba jekki-jekki ànd ak ñoom dugg si bato bi di dem di di jaay di ñëwaat ba jekki-jekki ci la amee clientèle commencé nag standardisé di di di di commencé expédier bañ a dem di yónnee donc histoire picc yi dafa gudd. donte sax ñu bari ñu ngi dégg turam mel na ni kooku nga xam ni moo di jàll jaar-jaar bu metti la am laata mu yegg si fii waaje nag am na lu mu si xam lu bari gaa sax su fekkee lay jamono ñoom ñu si bari ay ndaw lañu woon mel na ni fàttaliku yi mu ngi ñëwaat bu baax ku si nekk nag am na loo mën a wax ci jëmm jooju suñu sukkandikoo ci seeni kàddu nag jàll picc doorul ci jaayum picc waaye si la gën a fësee. da jaay des journaux à Dakar boobu ñuy wax euh, Paris dakaar u Dakar Matin yooyu daan wër boo yàgg bu ki kii ay picc yi ko jaay tubaab yi ñu koy jënd ci moom bi mu demee yàgg nag ci gàttal bi mu ñëwee euh, picc yi daanu jóge Casamance daanu jóge Guinée daanu jóge Mali daanu joge fu nekk daan jóge ci àdduna bi bi mu waaw fu ne la ko daan wër ci Afrique en tout cas am na jóge yu daan jóge Zaïre

di ko dugal si train wala di ko dugal n'importe quoi di ko surtout train bi di ko andil fi picc yi. picc yooyu nag mu daan dajale ba bëtam nekkul woon du dul yóbbu ko kaaw ngir mun ko jaayaat. su leen jënd par avion la koy commandé fekk ñu indi ko fii su ñëwee fii ñu yar leen fi def fi une quarantaine quarante cinq jours ba ñu fekk leen ak yooyu ñu soog koy à partir de là ñu envoyé ko pour mu dem France. suñ sukkandikoo ci waa ji nag jàll picc bokk na si ñi ko njëkk a def. moom moo njëkk a yóbbu picc ah ci Barcelone dem ñu ne dañuy kaawatee avion moom moo dem négocier boobu ñoom Adrien Senghor a ngi dund mu dem négocier en tant que ministre boobu temps Senghor la mu négocier ko ba ñu may ko autorisé ko mu voyagé picc yi ñu ne ko picc dañuy dee man ma voyagé ndoog picc yi ci sud bi ci gàttal waaw moo jëkk yóbbu picc yóbbu ko Marseille ci bateau mujj gi mu yóbbu ko France waaye moom moom mu jëkk a voyagé picc yi ñu àgg France ñu soog a xam ne kon mën nañoo affrété affrété picc ci avion ci suñu avion mu dem ba France te dee loolu ci moom moo ko fi njëkk def ci àddina bi. moom nag mu jàpp ni jëmm jooju de weesu na nit ndax liggéey boobu boobule mu daan def da daan am barke bu bëri. fii nii ay ay ay ay ay terrasse fi nekkoon boo fa daan romb fii picc yi ngay dégg ci biir kër gi bâtiment yi picc dafa mel ni sax ma piccee boobu moom dañoo dégg langaasam yontu yàlla Suleymaan moo déggoon langaasu picc yi ak njanaaw yi. moom dem na bu bu ñuy wàññi picc yi nii su tegee kees gi mu xool ko bu mu yàgg mooy leen wàññee leen kees gi mu wan na kees gi moom dina ko xool pendant cinq minutes ne nangam picc ci ne ñu ñuy wàññi benn un deux trois quatre yore calcul moom pare na bu yàgg su ngeen pare ngeen wax ma si loolu nag la boolee bépp ndaw moo xam ku mu xam ak ku mu xamul te jël leen tàggat leen si liggéey wàllu liggéey nun ñëpp ku su wàccee école di nga fekk sa abreuvoir tegal la ko nga ko su ñëwee contrôlé su fekkee ni setul am ga problème dimanche wala samedi suñu jàngiwul ni ngi si volière yi si volière picc yi di net di génne picc yu dee di compter di nettoyer volière yi di leen garab ak ndox kon da liggéey sa heure amul heure nag ndaxte su dee am na nañu commande buy dem bitim réew fajar n'importe quelle heure moom kay da nga ñaan yàlla mu bañ a doon ay deux heures du matin même deux heures du matin dañ leen di yee ngeen yanu kiasi dugal si auto bi auto bi dem aéroport so sawaré nak mën nga and ak ñom dem aéroport so sawarul mën nga tok jàll bi ci nak bari na ay ndaw yu mu tek ci yoonu ñubté ak liggéey ay nit yu mu taxawu bu ñu jëriñu ci jamono ji waji nak di sédé lolu ndax té mom mi lii ak moromam génné na leen ci lu bari dama demoon centre moma yobu centre tellement que léej buma ma ci charay te moom mu doonoon koo xam ne dafa jaboote woon ñëpp daal. li mu def ci caaro yi bari na ndax euh, bari na xale yoo xam ne tey jii ñi ngi yore seen i kër yore seeni i moom moo leen defar ba ñu àgg fii ñu àgg si. jàll picc nag yamul woon rek ci wàllum picc ndaxte te daan yëgu itam ci lu at dog napp ak jaayum jën mu demoon sax ba am si ay bateau yu bëri. motoon ay vingtaine mais gaal gi mu njëkk a am mu ngi tudd le Dauphin. gaalu sardinel la woon yabooy la doon napp mu teg ci ñu caaro yi am ay jaan Seydou Nourou 1 Seydou Nourou 2 am Muntaga 1 Muntaga 2 am Saraya Abdou Aziz am Malick Sy am na yeneen yoo xam ne sax dama koy xaw a fàtte quoi mu am usine mu am usine boo xam ne production. si loolu la tamit mu jël ay ndaw yu bari daal di leen jox ay xëy dugal leen ci ngir rek ñu mun a suturlu tey daw lu bari muy ay ndaw yu yeewoo ci koñ bii. def naa cinq centre bi ma retourné ñëwaat mu yóbbu ma soppe si à dafa amoon foofu benn usine. oto bi fii la daan taxaw ci digg kër gi 6 heures du matin ñëpp yéeg képp ko amul doomam amul doomi jàmbur fii ci koñ bi yëpp ñu daan yéeg dem port. ñu ñu can embauché mën nañ ay centaine journalier nag ay trois cent et quelque ñoo fi daan nekk journalier. bu ñu demee métier yaa nga ñii dañuy jàng mécanicien ñii soudeur ñii électricien ñii charpentier boo yàlla def tey jii man ma embarqué ci bateau yi. bateau bu ñuy wax Muntaga Tal ci la jëk embarqué bateau de pêche la presque naviguer na 1 an dogo ñew nak wut carte navigation vie Diène beng jàllap ci nak mel na ni wërsëgam bi ñepp la si daan dol bokku na ci wa koñ bi nga xamni dañ nan gis seen bop bu baax ci gal ma la wax le dauphin sa wër bu nek su joggé geej dinañ lal baax fi ci digg kër gi benn ci ñaari camion waa Caaroy ndawaloo ji usine jën yi mu yoroon parce que boo xoolee à chaque fois ñun fekkuñ ci lu bari mais ci digg kër gi fii lañ doon benn fii camion jën dëkkandoo yi ñëpp ñëw di tibb di yóbbu ak yeneen ak yeneen yoo xam te ne yooyu daf suñ koy dégg dafa ñuy xam ne alal adduna du tus loo am bokk ak say mbokk netti rek lay comme ni koy nettalee kër gi nag soo gisee tabaxaay bi rek sa xel demul lu dul si ab koñ. ci ay kàddu ji lee fi nekk nag. paa bi dafa boole woon ñépp def leen benn soo gisee buntu bi sax daanaka nekk fi woon suñ sukkandikoo ci ñi fi nekkoon nag paa bi dafa ubbiloon ñépp ay buntam moo xam ku mu xamul ak ku mu xam mbiru lekk nag moom kër gi daal këru ñëpp la woon ku nekk si jóge si bedd bi sax da nga ñëw lekk da ngay teg sa añ ba pare ba defee ni bëggal yi teg ni fudd yi ñëw ñi nga xam ñoo koy andil picc yi groupe nag bu sa parwaar la nga bokk ak ñoom añ bi kon dafa yaatu woon daal si gàttal yaatu woon loolu moom amu ci woon benn kii. soo fi musaan ñëw da defe ne ngénte la parce que matt la ñuy toggee teen bii ci lañ daan roote mun naa ko ne saaku ceeb temps bu saaku ceeb 100 kilos la 100 kilos moo amoon saaku ceeb lañ daan sóor. lépp nag lu ñu fi daan togg na doon lu neex tey sell ndaxte bëggul woon benn yoon njabootam ji di lekk lu naqadi. mus nañu ñëw.

njabot gi fi pour xam ndax baax na wala baxul fonk na njabot bi nga xam ne ba lepp lu njabot di lek mo ci ñëk lek mom dafa amone régime régime la yara won wante lepp lu njabot di lek mom mo ko ñëk ñam ba pare su neexul rek ka togg amna problème lool mom fekke naa ko. moom nag am bu bari bu mu def ci xalé yi nga xam ni ñoo mag ni jamono ji ndax dan na len tek beut bu baax. Euh, kër gi pour mu contrôler xale yi dañ naan def euh, mburu mi mburu mu ndékki si si kan si wetam koy teg da ngay ñëw yéeg nuyu ko jël mburu ndékki wàcc dem si maire yi jël sa café sukaay café sukaay lu mu neexee ak meew <laughs> sukaay ah benn marque café la xam mun waaye toujours si wetam soo ñëwee daanaka ab téere nga fiy fekk. mais mosuma fàttaliku fu ma di yéegee di ko nuyu su fekkee moom ngi yor téereem téere alxuraan di jàng waaw mosuma fàttaliku fu ma yéeg fu ñuy yéeg di ko nuyu di nga fekk période boobu lay lay lay généralement période boobu lay jàng alxuraan wala timis. moom nag mel na ni nitu diine la woon ndaxte daan na jëflante ak kilifa diine yu bëri yi. maa ngi fàttaliku it aussi kóllëre gi mu amoon ak nitu yàlla yi. Hmm, ku mel ni Thierno Seydou. wii Thierno mu mag mi. fii ajjuma bu jot bisu tey bi su ma saa julli ajjuma pare buy ñëw camion lay topp camion mburu fii la daan toog moo paa bi ñun ñu nekk ay xale tout tànk mu ñuy jox ay mburu yooyu Cerno Seydou Nourou Tall moom ñun mburoom boulangerie moom daan moom daan may mburu chaque jour sa Cerno Seydou daaw fi géej man ziare naa ko fi ay yoon yoon même su wàcc su oto bi sax day ñëw rek daawante ziare ko kóolare googu moom xam naa ko si moom ak Cerno Seydou si Cerno Seydou kon xamone ne góor gi paa bu am valeur la tay ji nak njabotu jàll picc comme niñ ko daan defé sa suné amal nañ bës bo xamné ne dañ ko ko jaglél ngir ñaanal ko bisu tay bi bisu ñaan yalla la ak bisu fateliku jeexitu nitu yalla bo xam ne ak jaglalu yalla la amone muy ku baax muy ko yiw dund dundam ni ma ko war a dundee teg ko ci pas-pas ak sharia liggéeyal yàlla diggantam ak boromam waaye nag liggéeyal yàlla ci njabootu yàlla surtout maa njabootam kooku mooy alxaaji Diallo Baba Aminata ñu gën ko xam ci Diallo Picc bisu tayam bi man sama xol daf ci sedd maa ngi koy doom yi ne leen kii mérité at par weer ngeen ñu koy wàcceel kaamil weeru lëmm quoi mérité na ko ndax liggéey na ko ci caaro yi. tey jii nag ci bésam bi Thierno Tall moo fi teewal njabootu Seydou Nourou taal moom mi lay nag mi ngi dellu siwaat bu baax ci relation yu jëmb ji amoon ak seen wéyjur jooju loolu tax na muy xamle ni nit du ko mos a fàtte. digganteem ak Thierno Seydou Nourou moo ko may digganteem ak Abdoul Aziz Al Dabakh moko may cierno muntaga ahmad muntaga moko may kep ko mu tabarakal amon ku bax e ci fouta mo may ko mo amak amak ñeneen relation ak yeneen e bo yalla dogal mo am tour ba nga xamni wali amul bob tur borom xaalis amuko, bur amuko addunomo tan mi ko andi won rek wut wërsëgam alaji amadou diallo alaji amadou diallo mi du dee mukk subaka fof ndax nga waxtu walla yeewoo neɗɗo no wuura e barkam te ngay gis ku dund ci ay barkam ganda nga xam ni a anda nga xam nga ñàkk xam nga dund ci barkam yow bis ba yàlla sak. subaka fof bis ba yàlla sakk nga jaar ci tali diallo ji ma barkam barke yàlla mi subaka fof bis ba yàlla sakk ma daadi réer nga ni xawma leen ni tali jàll fu mu féete ki may tali jàll la dëkk kooku tamit di yomb ci yow aha kay tali jàll kay mu ngi caaro yi benn la e ci Sénégal la ci ci Dakar donte sax bisub tey jii lañ ko jagleel mel ni pour ji tam xarit moo nekkoon bés bu mu gënoon a fonk bi muy gis nga ni nga koy defal bis tey tey xaw ma xale yi ah le 5 mai ngeen ko defal wante bitu baati na moom wax dëgg na yàlla tam xarit la bisu bi nga xam moom la ko yàlla jagleel li ma fekkee man ay ati ati at tam xarit moom day nekk si xaal day nekk si xaal day taxaw timis bis boobu la génn àddina teg si so day ba muy dund tam xarit day nekk si xaal ba pare guddi gi euh, timis bi suñu day jógee timis rek taxaw si buntu kër gi ku romb moo xam da ngay dem wala da ngay dëpp da dugg si kër gi par si lekk cere sa moom day tegale ay moom si moom mooy mooy tegale ay keesu meew nag ak cere yi rang lu mat ay fukki boole rangale nii moom mooy ñëw si boppam mooy mooy mooy sotti boppam meew bi day danaa curu curu ba me ba cere bu lóor kañ sañoo jóg loolu nag tax mu jàpp ni njaboot ji dina bàyyi xel si loolu bu baax tey bés boobu mu def si kémtalaay kàttanam wax naa ko xale yi ne leen bis boobu moom lu ngeen mën def boole booleel bébé leen ko boole si ñaani parce que xam naa ni bisam la pajalo picc nag fonk na lool doomu aadama waaye ku nekk ci ñim yar def na ci yow diine bu doy tey gën leen digal tey jegele ak lu suñu borom santaane góor gi suñu yewwan su yewwan fajar di dem jakka ja def nuy yee amna nu nu mu yete nak day tàmbale ci kaw état du yuuxu rek ngumé juule wéti ngumé juule wéti jóg leen julli mu ngi naaj xam koy man duma tukulóor nak motax tax mun ma mun ma mun ko teggi en tout cas baat bo mom bokk na si mu ñëk mokal ci si naaj nag jóg la waye su waaye su ñibbisee su jógee jàkka ja ba ñëw néeg yëpp na ci dugg ku mu fekk gëtëd rek du ma yar bi dal na yar bi dal na nit ñi nga xam ne dañu jàng école nag suñu jullee pare dañuy dem si toog am na fu mu defaroon benn place bu mu defoon suuf étage yi euh, nu fay def def seen révision yooyu waaye su ñi nga xam ne dañoo mën nelaw balaa moo ñëw sax na fekk nu commencé nelaw su nelawee daf lay yoot di di dóor la yee la su dul loolu ba mu tayee si dóor bi day wut ndox mu glacé lay teg lay andi sotti la ko man sama kaay yu bari yàqu na ndax ndax ndoxu glacé yooyu mu doon sotti. ñu bëri nag daan topp bëgg-bëgg diine ji ndax taxawaay bu jàll picc amoon ci gox bi euh, maa am na lu may fàttaliku si moom it sama classe gi yëpp fajar lañ lu ndax fajar ñu daan julli ji bu daan joxe ji asaka fajar da ngay sigg sigg rek mu daal di lay jox dix mille ca booba jamono wala cinq mille moo tax ba weer bi bu dikkee rek jàkk ji day fees dell dell fàtte naa ko wax fee ci biir sax jërëjëf loolu daal maa ngi koy seede ci moom yàlla ko yàlla xare képp si ñoom ñi nga xam ne joto jar, a jaar ci loxo jàllo picc nag amuñu leneen ay fàttaliku yu dul ay yu ñu am ci jëmm jooju ku nekk nag am tenyom, lum la bàyyeel te ñoom xamal nañu ni ñu ngi matale di si bàyyi xel bu baax bi ci mën a sama diggante ak moom mu wax ma ma maa ngi lay ñaan soo fi jógee ëllëg sama njaboot gi yow mii ñenn ñi kenn moo ma ci maa ci maaseel mooy Mamadou Diallo moo ma magee un an ñi ci des ñëpp mag man juruma la Samba Thione si mooy sa pap man maay Amadou Diallo fii Samba Thione si sama mag la waaye njaboot gi maa ngi lay dénk sama présence sama dund ba ba may dee maa ngi lay dénk fu ñu taxaw nga giseen leen ñu sonn def ci man mën ngir yàlla. Diallo ci nag am na lu mu mës wax mu ne ma yee eh, fekk gars yi di temps Amadou Sarr Amadou Sarr bi yore syndicaliste bii moom moo nekkoon suñu seef ci production ba ñuy grève mu ne ma eh yow kaay lu tax doo bokk ci grève bi bokkal ci grève bi wante bul taxaw ci kanam bul taxaw ci ginnaaw nekkal ci digg bi loolu dafa am lu ma jàngal même mbir loo ci bokk bokk bokk bu ñëpp di wootee rek ñëwal bokk. di ñaan nag caaro yi jàmm. ndax jàmm ci la lépp sekk te ñun caaro yi bu ñu amoon jàmm romb nañu fii tey dëkk yi ñu romb yëpp tey ñi ñàkk nekk ci jàmm rek la mais yàlla na yàlla def jàmm ci caaro yi vraiment maa ngi sant di leen gërëm. balaa ñuy tàggalikoo ak yéen nag di leen ñaan ngeen abonné suñu page tey activé suñu cloche de notification ngir ngeen bañ di tardé suñuy reportage ci commentaire yi nag mën ngeen ñu sànni seeni xalaat ci bépp sujet bu ngeen gis ni soxal nañu tey ñu war ci mën a gëstu bu baax xanaa rekk di leen ñaanal te di leen jox di daje kom ni ñu koy defee saa su fii ci Dakaractu